waaleykum salaam wa rahmatulah mbokk mi ñu ngi lay delloo bi ak ziar bu baax euh, di rafetlu bu baax euh, teewaay bi ci bis bi macha allah ñoo ngi jógee euh, forage Baye Laat ci peñjum Serigne Mahmouda suñu teewaay ci bis bi nag dara waralu ko muy woote bi nga xam ne daanaka ku ne dégg na ko xalifa général des mourides Serigne Mountakha Al Bassirou mu woote ko. ñu fas yéene tuub rek dolli suñu borom subhaanahu wa taala euh, ñaan suñu borom subhaanahu wa taala tamit mu jëggal ñu jëggal mboolem julli ni te tamit euh, li woote daanaka li yokk mu woote ko mooy mbas mi nga xam ne ñëw na ci senegal euh, daj fépp rek ci àdduna mën nañ koo wax ci lu ne rek ñu gis ko ci àdduna bi léegi ci loo xam ne daanaka daawuñu ko gis te ñu wax ne mag ñu baax ña ba boog ak nit ñi nga xam ne ñoo fi njëkkoon bari waa na si ñoo xam ne Euh, lañ daan digle mooy jàng alquran jàng xasida sàkk sarax delloo suñu borom bi maanaa delloo jaam ci suñu borom subhaanahu wa taala kon loolu moo waral bis bii tey li taxoon nag ñu teew fi mooy fa yéene kaa dundal ànd ko ak mbo mboolem murid yi rek comme ni ko sëriñ bi diglee macha allah. macha allah soxna si kàddu yooyu fi jot a dugg ana naka na ngeen waajalee bis bi nan ngeen waajalee bis bay ba jërëjëf euh, mbokk mi. bis bi nag waa daara Mafatihul Jinaan euh, ñoo waajal bis bi tey jii ci teewaay bu am solo bi euh, waajal nañ ko ci ay euh, alquran ñàngum alquran bi maanaa bi ñu xëyee jàng nañ fi ay limi kaamil ay xasida tamit dañuy bind ay limi lim incha allah ñi ngi ci buñ noppee dinañ joxe lim bi waajal nañ tamit ay xéewal yoo xam ne indaal nañ ko ngir képp koo xam ne rek ku fi ñëw dana si mën a barkeelu ba ba dem bis bi nag moom am nañ mbégte lool tey ñaana Bachir mu yàgg fi loolu te wér di soññee rek comme niñ koy soññee suñ bopp di wax ne sëriñ bi bëgg luñu bëgg dara lu du li mu bëggal boppam ndax dañuy wax ne doomu aadama li ko war mooy mu ne nekk ci li ko suñ borom subhaanahu wa taala digal bu sa nekkee bu ne rek daanaka la koy waraat du bëri mooy rëcc rëcc yi nga xam ne dañ koy am ñu koy jéggalu yàlla di góor góor tamit si li nga xam ne dañ dañ ñu koy digal ñu di ji jëfe loolu dina tax lépp loo xam ne luñ dugal dañuy yomb dañ tamit ñu góorgóorlu ci yoonu sëriñ bi ndax nii ñu ko gisee rek ku ne xam na ne bis bi tey ji ñi mu ni mu demee nii yombul yombul lii taw tawfeex la joo xam ne ku ci suñu borom bi subhaanahu wa taala tamit boole danga koo war a sant yàlla am nañ mbégte lool ci bis bi di ko dundal ànd ko tamit mbooleem jullit yi rek macha allah comme nii mu amee nii ah, di wax na rek dañ ci soññee bu baax ñu góor góorgóorluwaat ci jàng alxuraan jàng xasida yar njaboot gi bu baax ndax bi noonu rek la ko bëggee euh, ñi ngi ñëpp rek di wax na rek waa DMD la daara Mafatihul Jinaan ñoo amaloon fii teewaay bi ànd ci ak waa daara Mafatihul Bichri ak waa wilaaya macha allah kon am nañ mbégte lool ci teewaay. waaleykum salaam wa rahmatulah euh, tur bi soxna Ndeye Fatou Fall la daara Mafatihul Bichri Touba euh, ñoo ngi bàyyeekoo daara Mafatihul Bichri bu Touba. waaw jërëjëf soxna si ana mu mel ni li waraloon suñu toowaay bi kon que sëñ bi moo wootee njàngum xasida moo taxoon tey jii ñu ñëw ànd ko ak waa Daara Mafatihul Bichri ci njàngum xasida bi muy durus bi ak alxuraan ji ak euh, li mu euh, kurus yi wérde yi loolu moo nekkoon suñ teewaay ci bis bi. jërëjëf soxna ana naka ngeen waajalee li nga xam ne mooy journée xasida bi nga xam ne sëñ Mountakha Bachir moo ko woote. waaw mu mel ni bis bi moom euh, waajal nañ ko bu baax a baax ndax depuis ba sëñ Mountakha joxe ndigal ba tey ñu ngi ci waajtaay bi. waajal nañ ko ci du jàngum xasida ak jàng alxuraan ak ay benn waaye ñun moom yàlla danoo féetale danoo bokk ci ñin tànn ci wàllum drus bi mu mel ni ca soo ba tey ban ñëwee ñi ngi fi ñi ngi feggoo ci ñi ngi ñu feggale ci wàllum xasida yi ñu nekk ci durus beeg njàngum alxuraan bi di ko saytu di xool tamit fan la lim yu tool waa bis bi de ak sant la ak sant la gu wér sax ndax lu ci toll ne xasida yi Sëriñ Tuubaa yi moom buñ la ci woowee pour nga durus ko Euh, sëñ Muntaxa woote ci joxe ci ndigal kon tawfeex la képp ku ko fekk ku nekk rekk war nga cee am mbégte ak kontante ndax bisu mbégte la bisu tawfeex la waaye tamit bisu ñaan la tamit di ñaan suñu borom mbas mi nga xam ne moo fi nekk suñu borom jële ko fi ci barkeb xasaayid yi